Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alxaaji Mbégi Jóob ak Mame Ndokh TV mbokki jullit yi ñoo ngi fii ci jumaay Seex Seydil Xaaji Malick Si ji Euh, taxawaat ki nga xamante ni nag euh, jàmbaari Seydil Hadji Malick ji ngeen dégg jëfam ji mu jëf ci jumaay Mam Maodo ji loolu du ñu leen ko waxaat dégg ngeen jamaatun nuur as sunniya euh, communiqué ci ci wàllu la mu njëkkoon a diggee ci cent millions ya mu waxoon joxe ko ci miir bi nga xamante ni CDE daf ko waxoon wax ne da koy defar ci deux cent cinquante millions Abdoulaye Ndiangal gu jël ko ba pare mayaat leen ko ak yeneen yoo xamante ni Abdoulaye Ndiangal gu def def ci jumaa te du bëgg kenn wax tey nag bu ñu taxawee fii ci jumaa Seydil Hadji Malick gi moom mu taxaw fi dinañ ko laaj Abdoulaye tey ngeen ñëwoon doon def visite ñu bëggoon xam bitu visite bi lan la. hélas jërëjëf maa ngi lay nuyu lu nuyu aussi tamit euh, waa Tiwaawan yëpp di jiital suñu yëpp sëriñ xalif la xalif général des Tidianes sëriñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla guddal fanam may ko wér di nuyu njaboot maam Seydil Hadji yëpp tey li ñuy andi woon fii si jumaa ji mooy dañu ñëwoon def visite euh, boole si daf benn compte rendu par rapport jumaa ji bi ñu commencé ak fi mu yem ak fi ñu jot euh, fi ñu jógee ak fi ñu donc je pense que ni ko déggee communication bi jaar na yoon compte rendu bi aussi jaar na yoon donc wax nañ jumaa ji kañ lañ ko commencé wax nañ jumaa ji aussi fan la jot egg jot wax nañ aussi tamit ñi nga xam ne tey yàlla def na tamit ñu bëree bëri jàpp nañ ci dugal seen loxo ñi ñi ñi nga xam ne tamit ñoo sekk jumaa ji muy techniciens yi muy ingénieurs yi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp wax nañ ko donc loolu moo waroon tey ñu def visite visite visite de chantier bi. visite de chantier bi nga gis li ñu wax actuellement nii fi jumaa ji toll nga jàpp ni xam naa d'ici peu de ji mën nañ jàpp ni di ko livrer. waaw incha allah loolu mooy suñu yéene ndax defe naa ni liggéey bu toll nii ñu war ko liggéey si 36 mois yàlla dogal tey ñu ngi si 28 mois et je pense bu ñu defaatee peut être fii ak 6 mois yàlla mën na defal sutura jumaa loolu day wane ni nag taxawaay bi ak euh, pas-pas yi nga xam ne moom la taalibe yi am pour que jumaa a egg à temps. Abdoulaye Ndiaye Ngalgou bokkoon ci jamaatu Nour As-Sunniya ñi Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour tànnoon euh, naka ngeen gisee jamaatu Nour As-Sunniya ak liggéey bi ni ñu koy toppatooyee. vraiment dañuy def mention spéciale waa jamaatu As-Sunniya yàlla dogal na man aussi si laa bokk euh, waaye liggéey bi nga xam moom la def dañ ko ànd ak yéene ànd ko ak jub ànd ko aussi ak professionnalisme Serigne bi juumul ci choix bi mu def. ba dénk jiital ku mel ni Makhtar Cissé si si Jamaatul Nuur jiital ku ni faamara Sylla aussi tamit si Jamaatul Nuur donc ñooñu ñëpp ñi ma li ma mën a lim bari na waaye damay wax rek si ñaar ñooñu taxawaay bi nga xam ne am nañ ko si si si jumaa ji waxuma sax si jumaa ji mais si xajar maam Seydi Hadji Malick bi yëpp ñooñu aussi ñu leen di ñaanal yàlla taxawu leen lépp loo xam ne yëkkati nañ ko sumb ko tamit si xadara Maam Seex yàlla yombal ko si barke Yonent sallallahu alayhi wasallam mais jamaatu nur as-sunniya maa ngi dégg ci bëy ñu ni même juma Seydi El Hadji Malick Guèye réflexion yi ko waaw loolu lépp dafay bokk si yéene yi nga xam ne moom lañu am euh, maanaam taxawu xadara bi lépp loo xam ne xadara bi soxla na ko te xadara laaj ko ñun taalibe ñu jóg taxaw ba loolu mën a egg donc loolu mooy suñu yéene Abdoulaye Ndiaye Ngalgou doon wax nii benn jour dafa romb jumaa ji mu nekkoon ci bu ko yàlla moyoon mu yeggale ko yàlla tey boole ko ci actuellement nii mébét boobu nga amoon yàlla boole la ci tey boo dugg see ci jumaa ji ak ni mu mel na nag noo ko nga koy yëgee. El Hadj daal damay sant sama borom fu ma toll ndax lu jiitu li ay at ci gannaaw ay at yu bari sax dama yàgg wax ni jumaa jii de dama gëm ni maa ko war a eggale ndax yàlla dogal na euh, ñu am yéene bi am na yéen def ko si donc tey bu yàlla defee tey yàlla mottaliñ suñu yéene ndax defe naa ni ñi seq jumaa ji bari nañ li fi nekk si entrepreneur aussi bari na mais yàlla dogal na sama société mi ngi liggéey si biir jumaa ji mhm. liggéey boo xam ni lii dañ ko jël def ko gratuitement muy suñu participation si jumaa ji comme ni nga ko waxee yàlla dogal na mieux de clôture bii nga xam ni tey moom la ñu engagé wu li ko jiitu aussi ñu joxe suñu participation ci loo xam joxe nañ ko ñu toll ci cent millions joxe ko liquide ñu ñëw si mur de clôture bi ñu nii société bi nga xam moo ko waroon def daf leen facture deux cent cinquante millions bi nu ñëwee fii réunion ñu gis liggéey bi xaw na yéex ñu ni dañuy jël travaux yi les travaux dañuy jël travaux yi en régie ñu consulté ma ne ma dañu bëggoon nga xoolal ñu miir bi loo ko mën defee bi ma xoolee mur bi gis ni CDE def na ko à 250 millions ma ni leen man de bu ma defee sama sa sec maa ngi si 160 millions waaye jàpp leen ni def naa ko muy tamit sama participation si biir jumaa ji. donc loolu yàlla dogal na ñu ngi koy liggéey miir bi boo xoolee ba wëree jumaa ji miir bi daanaka pare na. li ñu dese mooy fu douche yi nekk nii la war a démolir pour mën a eggale miir bi. miir bi nag li mu composé dafa bari dafa am trois portiques. yoo xam ñu ngi si mur bi portique bi rek ça fait neuf mètres de hauteur trois portiques yooyu benn bu si nekk équivalent R plus 3 nga ndax li mu jël si mètre cube parce que cent cinquante mètres cube de béton la benn bu nekk waxuma fer bi de mais benn portique bu nekk mu ngi jël cent cinquante mètres cube de béton plus fer beeg yeneen ak yeneen di si topp. local technique bi aussi tam bi nga xam ni tey moo takkaloog mbir bi yàlla dafa aussi ñoo ko jël en charge defar ko te boo demee xool local technique bi kuule nañ dal bi ba pare dalal sol bu ñu dese incha allah léegi ñu livré ko. yamuñu si loolu fii nga taxaw nii dal bii nga toog pré-choc bi lu wër jumaa ji yëpp si biir jumaa ji ñun ñoo liggéey pré-choc bi donc lépp loo xam ni tey euh, CD jëloon na ko ñu xool ni liggéey bi yeex na man buñ bu leen CD facturé cent sax man leen fay leen trente société bi fay bi sax tudd tur la rek ndax wax naa leen man bu leen ma calculer fay leen ñi ngeen war a fay ba lépp pare ñu doog a xool la ñuy def donc yàlla dogal na ñu ngi siy liggéey te extérieur bu aussi tamit bu yàlla defee jàmm incha allah bu ñu paree tamit ñoo war def coulage sol bi yëpp quoi. donc lan ngay wax Serigne Babacar Sy Mouhamadou Lamine Mansour ci njàmbaar ji mu def fii ci jumaa moom dañu koy ñaanal yàlla guddal fanam may ko wér ba mu mën a ñëw taxaw inaugurer boppam jumaa ji jiituñu si ay at yi at yi at at ndax li mu sumb si këru maamam dëgg yàlla. du lu ndaw te ñu ngi koy ñaanal yàlla kàttanal ko yàlla gën ko dolli wér ba bëpp yéene boo xam am na ko mu eggale ndax yéene bu du lii rek bu ñu jógee si jumaa ji incha allah am na yeneen projet te ñu ngi ñaan yàlla ñun ñëpp yàlla defal ñu fan wu gudd ak wér bañ mën ko fekke mais li may sant daal sama borom mooy yéene bu ma amoon demb si at si gannaaw amoon yéene ni jumaa ji maa ko war tey su ma demee ba tey sama empreinte société nekk si jumaa ji loolu damay sant sama borom. donc loolu maa ngi sant yàlla fu ma toll di sant aussi Serigne Babacar Sy Mansour si confiance bi nga xam tamit am na ko su ñun ba boole ñu si si Jamaatul Nuur di sant aussi waa Jamaatul Nuur tamit ñoom tamit ñu boole ñu su si liggéey bi donc loolu suñu koy sant bu baax a baax si loolu. Abdou euh, Abdoulaye ngal gu daaw gàmm gi bi ñu ñëwee da ngaa yéegaloon bi ci baar boo xamante ni jot ko du yomb ren ngay préparé gàmm gi naka ngay préparé gàmm ren gi 2023. moom daal El Hadj nañ ko doon defee bu ñu yokkul duñ ko wàññi. la ñu defoon daaw bu ñu defee benn dinañ def fukk incha allah moom daal dañu bëgg képp ku dëkk Tivaouane ndax yëg sa bopp gàmmu gi ren bëgg nañ taxaw askan wi jàppale askan wi te incha allah bu ñu yàlla dimbale fii ak suba bépp dimbal boo xam war nañ ko jébbal population bi si gàmm. dégg naa sax nag de. waaw loolu mooy li nga xam rek. dégg naa cinquante tonnes de. li nga xam rek mais mais li ñu li daal romb na foofu incha allah. tracteur bi amoon daaw amis gël yi dina amaat ren. waaw lépp lépp incha allah bu si yàlla andee waaw. képp ku bëgg a ndekki jouru gàmm na nga ñëw kër Abdoulaye Ndiaye ngal ko amis gël day indi ba indi tàndarmay aljana alxaaji mbégi jëm ak mam dox bi jërë ngeen jëf